sunnatan bisimilah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp commission communication bi aju ci kuréel gi di junnatun liman nazamaho tey ji nag ni ngeen ko gisee fii ci euh, résidence Khadim Rasoul daanaka lem mat ayu bés saa suñ xëyee fii la ñuy daje ngir nag nekk ci liggéey boobu ñi ngeen di gis tey muy rang bi mooy mbokki taalibe yi nga xam ne ni dañoo bàyyeekoo ci ay gox yu fasantikoo ci biir Touba dogal ñu loru ci mbënd mi ñëw nag ngir ñu taxawu leen commission bi yore wàllu recensement bi ñoom ngeen gis noonu ci bunt bi kon ci kanam tuuti dinañu dem ànd ak mbokki taalibe yi li leen fi indi ak yàqu-yàqu yi door a nag ànd ak commission bi nga xam ne ñoo yore wàll woowu buñ ca paree itam dinañ dem ci yeneen bërëb yi nga xam ne ni jamono yi ñu ngi fay joxe ay ndimmal ak bërëb yi nga xam ne itam jamono yi ñu ngi fay pompe ak mbooleem commission yi nga xam ne ni dañoo aju ci kuréel googu wa ah Baye ñu ngi lay ziare bu baax a baax bëgg na xam tur bi foo bàyyi ko ak euh, jéego yi li ko waral tey fii ci résidence bi. Ah, ñu ngi lay delloo nuyoo man day maa ngi tudd Alaaji Aymeeru Gajaga dëkk Daaru Xudoor ci booru Basse Sëñ Murtala ci fi ñuy wax der yi waaw léegi nag euh, maanaam sama kër dafa indoon la ko indi nag mooy dafa am kër goo xam ne dafa jàkkaarloo dafa nekk sama gannaaw. muy terrain bu mag boo xam ne mat na 100 mètres carrés léegi nag euh, kër ga borom euh, maanaam dafa dëkkul kër gu màggat la daal mirie daanu mirie daanu nag moo tax sama kër inondé ba fii mi nii sama kër ñi dëkkoon ci suuf maanaam léegi dañoo toxu dañoo abal feneen fu ñu dëkki léegi ca kaw rek ba euh, fa des maanaam suuf gi daal li gën a wér suuf gi yëpp daal maanaam moobal ya fa nekkoo nag bagage yëpp daal dafa yàqu lépp daal dafa yàqu maanaam moo tax tey ji ma ñëw di wallu kii ndax ndox ma daal bari na lool bari na lool ci suuf ña dëkk ca kaw itam pour ñu wàcc maanaam problème la ndax foofu yëpp géej la daal léegi sama kër fi mu ne am na autoroute ñaari mètre ci biir kër ga ca suuf néegi ca suuf kenn dëkkatu fa waaw jërë ngeen jëf ñun ñu ngi dëkk Kër Ñang nag waaw li ñu indi fii moom danoo dégg na dañuy bind fi ñu ne leen ñëw parce que danoo yàqu la loolu doy waar ndox mi jàtt nañu suñu kër moo lam ñu nekk fi ñëpp xaaj bi Kër Ñang lan dëkk yàqu la nañ ay matériel yu bari ñuy wax rek ñu jàppale bu baax daal parce que defar sa kër ba mu jeeg ndox mi ñëw lii ko ndox mi moom yàllaa ko dogal duñ ko joytu fenn dañ koy sant yàlla suñu borom rek waaye di ñaan tamit ñu dimbali ñu bu baax rek waaw mel ni dimbali ni nga ko waxee borom dëkk bi di xalif général des mourides Cheikh Mountakha moo ci jiitu di ci def jéego yi am solo ba waral say jéego fii jëfi Cheikh Mountakha jooju yan kàddu nga ci yëkkati. waaw ndaxte bi ma xoolee sama TikTok gis naa ne dugal na ñaar téeméeri million ñu kontaan si lool di ñaan yàlla na yàlla yàggal ko fi saxal ko ci suñu kanam te gën koo kàttanal di wax ne tamit moo ñu indi fii bu buñ ci amee tamit luñ dimbaloo dañuy jël bu baax. maa nga bàyyi ko ñaari pënu. Euh, tey lu doon xanaa sonn rek ak jaaxle. Mm-hmm. waaye nag ak sant yàlla rek. Mm-hmm. ndax mënoon naa gën a métti. jéego yi li ko waral. Uh-huh. mooy daal suñuy bagage yëpp yàq yëpp nga ca biir ndox mi. ndox mi da na a impacté. waaw ndox suñu bagage yëpp nga ca biir. Mm-hmm. lal yaag mat la yaag armoire yëpp nga ca biir. amul sax fu ñu jaar ba génne ko. ci ci ndox mu mujj nii. ca première ndox ma nag lan génnoon waaye booba defar nañ bagage yi tey nag danoo demoon bay waaj a dellu siwaat nag raxas kër yi bay waaj a dellu siwaat ndox mi mujj a ñëw moo moo buub bagage nag yëpp nga ca biir waaw waral tey moo ñëw fii di sàkku ndimbal mm-hmm. moo ñu jàppale euh, ci defaraat bi ndax wax dëgg yàqu yu bari na ndax bagage yëpp nga ca biir nii ma la koy waxee nii bu demoon ci sama kër ga tey bagage lal yaak yaag armoire yaag mat la yëpp nga ca biir ndox amul fu ñu jaar ba génne Mbàkke moom dikk rek moo moo moo ca jëkk moo cay mujj noo ngi koy ñaanal taxawaayam yàgg ndax lii lépp mooma noo ngi koy ñaanal taxawaayam yàgg. Serigne Cheikh Ndiaye la Touba yoon Daaru Rahman ñun de comme dañoo am ci li dal ñëpp rek muy wàllum ndox mi di ñëwoon fii doon doon leerlu comme bind yi ñuy wax wàllum dimbali mënu fi indi ci lañ doon dox ay jéego daal ngir nuñ ci bokkee. daanaka comme ni mu demee daan na sunu miir ñu defaroon fa ñaari fonds yoo xamante ni benn bi daa yàgg benn bi ñu bëggoon koo daloo ñoom ñaar ñëpp mujj ànd yàqu. lu demee ne ay ndaamaare di yoroon nañ ko koo xamante ni ndox ma daa solo ci moteur ba yàqu na ak ay ganaar ak yeneen xeet yu mel noonu daal lu ci bëree bëree bëri wax dëgg yàlla fi mu toll nii yàqu na ba mu demee ba léegi mu ngi ba tey nii kenn demul fenn xëy tey jii rek lañ mujj delluwaat ca kër ga bëggoon a génn la des ca bagage waaye mënuñu koo génne lu tuut lañ ci mujj génn ñëw ñëw toog waaw. xibaar bi leen indi fii naka ngeen def ba jot ci. waaw dafa am ay numéro vert yu ñu joxe woon woote woon. bi ñu wootee ñu ne ñu da di ñëw fii ci kër sëñ Tuubaa gi bu ngeen dikkee leeral ni mu demee comme li ngeen yàqulee xeet googu ñu ñu ñu bind leen loolu moo ñu fi indi waaw. sëñ Mountakha Mbacké xalif général de mourides yàlla na fi yàggal te wér mel na ni jóg na taxaw temm ngir taxaw mbooleem ñi nga xam ne loru nañ ci mbënd mi lool sax moo waral jéego yi ak liggéey bi euh, jëf yooyu en tant que taalibe murit yan kàddu nga ci yëkkati. waaw di ñaanal sëñ bi mu yàgg fi loolu te wér rek te xam ne lii mu def nii wax dëgg fa yàlla xam na ne dëgg dëgg dëgg dëgg taalibe yi ñor nañ ko waaw sëñ bi wàll ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ndax nii mu ñu walloo nii kenn ku nekk sañ bu xam na ne xel ne boo jàqee sa kilifa wallu la da nga am yëg-yëg bu wér te gis nañ nim ci taxawee xam nañ fi ko taalibe yi toll xam nañ fi ko murid sëñ Bàmba yi toll kon ñu ngi koy ñaan mu yàgg fi lool doo xam ne di ko xamal ne ñun ñi kat nga xam ne dañoo looru ci mbënd mi kontaan nañ bu baax ci sëriñ bi kontaan nañ bu baax ci sëñ bi waaw. waaw ca ginnaaw la nag man sama kër moo taa at mu jot daanaka sax day am ndox fi ne samay néeg moo am ndox ba daanaka génn ma waaye benn ba dama koo tànk doog cee mën a dëkk ñaaree ca des ñemewuma caa dëkk sama simaat yàqu na ak dugub bi ma fa defoon waaw ba nii ba may génn daa fees dell waaw ci taw bi mu doog a ñëw at mu jot daal daanaka damay génn. Euh, mbokk yi ni leen ko waxee rek ñoo ngi ba tey euh, fii ci kër sëñ Touba gi ànd ak commission bi nga xam ne ñooy euh, dalal mbokki jullit yi nga xam ne ndox mi dalee na xaw a laal fii nga xam ne moo di résidence Cheikhoul Khadim commission bi nag di def liggéey bu am solo bàyyi say booba ak léegi bi sëriñ bi sampee kuréel gi yéen a ngi wéyal seen liggéey yéen a ngi recevoir nit ñi bàyyi ko ci gox yu fasantikoo ci dëkk bu tedd bi di Touba liggéey bi naka la nosoo booba ak léegi. danoo nekk ci commission bi nga xamee ne dañuy seet maanaam recenser ñëpp ñi nga xam ni eh, am nañu jafe-jafe ci ndox mi ci seeni kër dafa am na commission boo xam ne dañuy wër ci quartier yi nekk fii. ci kër seexul xadim bi eh, ndax ñi nga xam ne dañ leen a jël wala ñoom dañoo ñëw fekkuñu li fa ñooñu lañuy ñuy recevoir waa koo xa koo xam ne jot nañ laa bind ci quartier bi moom jërul ngay ñëw wax dëgg yàlla ndax duubul emploi rek lay doon. kon loolu ci la ñu nekk démb bëkkaati démb ba tey nit ñaa ngi ñëw nag tubaar fakal la eh, ñi ngi bind suñu bindee ba noppi nag day am commission boo xam ne mooy saytu loolu nag ba xam ku ne lu cay sa àq ak loo yellool ñu jox kon liggéey bi mën nañ ne ñiy dem ci terrain bi di fekki askan wi ak yéen yéen bokk benn liggéey euh, voilà léegi bëgg nañoo xam itam ki nga xam ne dafa dégg information bi war a ñëw fi bindu si yan pièce wala naka lay ñëwee. waaw ki dégg information bi moom carte d'identité lañ koy laaj ak numéro téléphone. su ñëwee kon incha allah euh, dinañ ko enregistrer teg ya nga xam ne kër ga na na la yàqu-yàqu ya toolu ñu xool. kon bu ngeen recensé ba pare da ngeen di jëbal dossiers yi ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ngir nemmeeku vérifier information yi indi fii ndax méngoon na ak la ñuy fekki. waaw ndax day commission yu bari e, commission yi nii nun su noppee ñii ñoom nun demul ci terrain bi mën naa am commission boo xam day wër nag ba xam kii li mu wax ba ñu kër googee ma wax ba mu demee nu mu ko fekke commission yi suñ ñëwee nag ñooy daje suñ xëymaa ba noppi nag ñi yor ñi yor magasin ya ak ñu yor finance di séddale ñoom ñooy xool xayma la nga xam ni mën nañ leen liñ séddale ñëpp nag ñu xool ni nga xam ni ñoom yelloo na ak ñoom li ñu wax. jërë ngeen jëf mbokk yi kon dégg ngeen commission bi nga xam ne nii ñooy dalal mbokki taalibe yi fii ci résidence Khadimou sol seen liggéey ni mu tënkoo ak ni mu nosoo dégg ngeen itam kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci ñi nga xam ne dañoo ñëw. ngir ñu bind leen euh, biñ déggee information bi ak li tax ñu ñëw kon duñ def lu dem sur le terrain ànd ak waa commission sociale bi nga xam ne ni ñooy def suivi liggéey recensement bi la. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñuy topp cellule communication bi aju ci kuréel gi di junnatul ni ñu leen ko waxee woon léegi ci kër Serigne Touba gi ñu ngi ànd ak commission sociale ñoom ñi xam ne ñooy recensé kër yi nga xam ne ni ndox mi da leen a lor waaye itam ñooy dimbali njaboot yi nga xam ne ni dañ leen di jële ci seen kër yi yóbbu leen feneen ci ndigalul Serigne bi muy commission sociale ni leen ko waxee woon foofee ca kër sëñ bi ban fa jógee ci nin ñëwee dégg information bi ñëw di bindu noonu nag la leen fekk si fii tey jii ñëw ànd ak ñoom xool situation bi nuñ koy dundee ñu ngi fii ci quartier guy mbind ñu ngi lay ziar soxna si tur bi naka la. man maam naar Ndiaye laa tudd. tey mel na ni kër gi euh, ni ko fekk ni ndox mi xaw na ko kii bi mu tawee ak léegi expliqué ñu ko situation bi ni mu demee ba tey jii. bi mu tawee ba léegi moom ñun moom sonn nañ moom boobu ba léegi ñuy génne ndox mi mun ñu fexe ba génn ko dañuy àbb machine génn mooy loolu suñu bagage yëpp yàqu na ñu ngi instant yi ñuy génn nii ci biti sax di yóbbu ci yeneen kër yi ñu dëkk waaw sonn nañ tolo mo wax dëgg yàlla waaw lu ñu dimbalee tamit nag ñu jël. mel kuréel gi yore wàllu ndimbali ñëw na naka ngeen def ba jokkoo ak ñoom tey jii ban mën ne xam ne yéen da ngeen a loru ci mbënd mi. waaw dañoo dañuy bind foofu kër sëñ Touba yi ñi ñi nga xam ne daal mi da leen a sonal léegi ñun ñun ñu dëgg suñ tànk dem léegi bi ñu demee fekk nañ fa ndaw lañ ndaw fa teg léegi ñu expliqué leen li mu demee ñu binduñu waaw nañu léegi ñooñu dina leen sees si waaw léegi waaw ñoom ñoo fi ñëwoon daal ci ndigalu sëñ bi sëñ bi moom amuñu lu di ko sant rek waaw sant ko daal la def ndax moom dëkkam bi moom dëgg yàlla mi ngi dimbali doomu aadama yi di koy ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram mu yàgg suñ kanam ne du ñu gën a teete ba ci kanam waaw ñu ngi koy sant bu baax la lu mu dund daal xeeb nañ ko soxna si ñu ngi lay ziar tur bi naka la soxna Mariama quartier bi nu mu tudd di fekk leen guy mbind tey mel ni taw bi da leen a xaw a impacté naka ngeen def ba dégg liggéeyu kuréel gi ba tax ngeen ñëw fii ñoom ñu mën fee ñëw ah ñun dañoo gis nit ñi di bindu ji après ñu ñëw ñu ne fee dañu ngi bind fee si kër sëñ bu mag bi léegi ñu tam ñu dem bindu ji ci lañ ñëw seet si ñu. tey ñu am euh, ñu seq seen i jéego ci ndigalu sëñ bi ñëw seet si leen kon mel na ni xel dal na tey. ñoo mujj nekk fii ñu abal ñu kër gu ñu dëkk fii xam nga fii moom foos bi moom kenn dootu ko utilise gis nga ni mel ndox mi lépp a ngi ball ci kër gi. bëgg naa daal ku ñu. lekk liggéey boo xam ne sëñ Mountakha moo ci joxe ndigal ñu koy taxawu yan kàddu nga ci sànni en tant que euh, taalibe murit bu dëkk fii ci Touba. dinaa di ko sant rek di ko gërëm it gi yaa di ko ñaanal gudd fan ak fi lool mbàkke te ànd ak wér yàlla taxawu nañu ndax xam nga ne lii moom koo yëg doo ngay tax nga jug di ko wër ak di xam li muy dund si këram xam nga lii moom dafa metti torop ci ay borom kër yu génn da wuti feneen fu ñu dëkk gënalu leen moom waaye kanaa kii suñu borom rek. tey jii nag dañoo wàcc ci terrain bi fas yéene recensé ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëwoon kër sëñ Touba ga bi ndox mi bari moom mi nga xam ne moo wàccoon ci dëkk bi ñu xam ne sëñ Muntaxa am na koppar yoo xam ne dégagé woon na ko teg ko ci genn kuréel ngir ñoom ñu saytu ko ñi nga xam ne ñoom ñëwoon kër sëñ Tuubaa nag bindu ñoom lañ wàccoon tey ji ci terrain bi di vérifier di xool ba xam li ñu waxoon ak li nekk ci terrain bi ndax méngoo na wala méngoowut bi ñëwee effectivement am na ci yoo xam ne méngoo na mais am na ci yoo xam ne méngoowut loolu moo waral tey jii xam ne daal ñëwoon nga mi bindu woon ca commission yi tey na ci euh, la yoo xam ne ñu dañ koy jëlaale di ko def ko comme observation bu ko defee ñu jébal kilifa yi ñoom ñu xool ba xam yenn jéego lañ ci mën a teg ba xam ne dégâts euh, a delluwaat seen bëgg nga lu mel nii yoon wi ngay jaar bañ mën laa taxawoo. waaw comme képp koo xam ni bëgg nga lii eh, kuréel gi sëñ Mountakha taxawal. ñu am ay mécanique yoo xam teg nañ ko muy ay numéro vert yoo xam ne nii képp koo xam ni woote nga ci da mën a jot ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu loolu su ko defee dinañ yebal ñi nga xam ne ñoom ñooy wàcc ci bi ñu ñëw xool ci jafe-jafe yi nga xam ne signalé nga ko su ko defee ñoom ñu wut ay solution yoo xam ne dinañ ko ci def واغفر لمن بنوا بنا الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانوا على بنائها الذي بفضلك وجنة لسالك مريد وجنة عن